Eh, nemmeeku eh, ci eh, réew mi fële ca Massar donc ñu gis ni am na fa une vive tension entre le maire de Kër Massar Nord en l'occurrence Mohamed Bilal Adjata ak commerçants yi nga xamantene ni ñom ñoo fa nek wa xam nga lima lay wax rek bo tax bo déggé manan le Sénégal ñun rek le mérito ci li mëna changer situation. ñun ma réew yi parce que ñun rek ñoy laal ñun ñoy pointer du doigt fan la problème au Sénégal juddoo mais marchand ambulant lan moo koy produire xam nga doo taxaw rek dëgër piir leen dàq leen ñu tasaaroo ñi jaar ci gaal gi ñi jëlaat Nicaragua bi ñi jëlaat désert bi mais lan moo koy lan moo koy def Abdou Diouf dëgër piiroon na Abdoulaye Wade Macky Sall dëgër piiroon na Abdoulaye Wade dëgër piiroon na ñoom ñu ngi dëgër piir mais fondamentalement lan mooy créé un marché en bilan mhm. C'est ça le problème c'est là où C'est là où moi man la kenn ci décanter situation wu le ah dama Sénégal dafa y am ñaari système éducatif mhm. dafa un système éducatif professionnel temporel bi nga xam moi produire produire ñi ñuy qui ci le politique waaw c'est le système système politique bi que école française est encadrée koy encadré mhm. am le système éducatif traditionnel bi nga xam moi mooy école arabe qui bëkk néegu wala kuy muritu wala kuñ yóbbu wala kuñ dénkaane ñooñu ñooy perte seen temps loo xam ni ñu demee ba màgg war a mënal seen bopp seeni cër du leen mënal dara yooyu ñooy produire sa genre de ce genre de boulot. Mm-hmm. mooy ku yo kuy jaay ab socc wala ngay jaay sump wala ngay jaay fiiru jinax wala ngay jaay tàngal mant wala ngay waas ay jën wala nga yor taabal wala nga yor brouette wala boutique gu mbagg du ma ne loolu liggéey la. loolu liggéey la mais da nga ci dund au jour le jour parce que da nga bari lo rattraper ci sa aduna lo xamni préparé wuñu la pour nga mën dara lu amal njariñ réew mi amal njariñ sa bop donc likoy produire ba tax meññeef mi nek ay marchand ambulant ak ño xamni dañuy dem ci ay table ci ay mbedd di ko occuper wala ci ay marché di lal fuñu ñu lal fondement bi fofu la force il faut nga il faut nga il faut nga nga éradiquer ko xam nga comprendre suñu bëggee d'ici vingt ans on aura plus de marcheurs marchands ambulants il faudrait une éducation forte éducation qui le lépp la nekk ana jusqu'au moment où je te parle le Sénégal est une terre vierge dans tous les domaines Fi, sur le plan infrastructure euh, euh, de telle envergure li ñu indi li ñu def mu bax lépp ay nit la ñuy jëlee rew indi ay indien la indi ay chinois la indi ay pakistanais la indi ay turcs la indi mais ñooñu suñu suñu nous ñoom ay nit lañ ñun ay ñun suñu spécialisation nous allons être des spécialistes pour certaines yo choses yoo xam ne foo dem ci monde bi nit ñaa ngi jaay boo demee Chine am nay am nay jaay mais chinois buy def marchand ambulant doo gis parce que structuré nañ ko chinois bi bu fekkente ni mentalaatu lay jaay mentalaatu bi da koy defar moom ci boppam da koy defar industrialiser ko paqueté ko di ko jaay créer magasin sénégalais bi mooy jóge fii moom mënul dara dem Chine jënd ay mentalaatu ñëw di ko wékkat ay moroomu sénégalais mm. xoole ci tailleur bi rek tailleur bi nga xam ne moom mooy suñu spécialité bi ñun 217 ku xam ku ne xam na ni ñoo ko dàq ñëw ci monde bi fii mm-hmm. broderie bu rafet mais xoolal tey loo gis broderie yi xale yi jàngoon métier daan def broderie 80 pour cent yi amatuñu métier xam nga lu tax parce que dañuy importer broderie yu chinois bi. et chinois bi moom musul xam affaire broderie ci xaftaan mais ñëw na fi xool ni ñu koy defee mu dellu réewam créer machine créer caoutchouc bi nga xam ni mooy dawal courant bi. créer coton bi créer huile bi jël sunu zircon ak leneen leen ñëw dem def ci machine am machine bi di broderie mu koy indi wat diñu ko diñu ko diñu ko indil diñu ko jaay. Mhm. su ko defee tailleur yi gis nga léegi dañu am problème emploi ci menuiserie bi noonu la demee ci maçonnerie bi noonu la demee ci textile bi noonu la demee c'est-à-dire. cela veut dire que la jeunesse euh, tàggatuñu leen comme niñ ñu leen waree tàggat. exactement dañoo tàggatul comme ay nit ñu man dara te duma la nëbb 98 pour cent des pays pays noirs pays réewu nit ñu ñuul yi ma jaar mhm. déglu baax li ma la réewu nit ku ñuul yi ma jaar. Nous avons 70 qui cent ci qui ci ci population yoo c'est des croyants mmh. ils peuvent rien faire duñ ne dara ci seen biir xel. loolu nag xam nga man samay débat dama am débat de dama am dama koy catégoriser en termes de package dafa am une partie de surface samay débat en mmh. partie fond en partie profondeur xaw ndax comprendre li meeg si fi ne li ñuy waxtaane man ak yow moom la sénégalais yi bëgg moom la ñuy déglu boo xoolee plateau yépp moom la ñuy waxtaane mais loolu surface bi la mhm. parfois ma cuqati tuuti ci fond bi teg ci surface bi mais su ma tibbee ci profondeur bi teg ci surface bi day traumatiser sénégalais yi moo tax lépp loo ci gis étape par étape la mhm. voilà au fil du xaw ndax comprendre li ma expliqué mhm. il faut ñu defar nit te nit réew mi moo amagul capacité wu produire nit. d'accord mmh. maintenant que que comme ni nga ko waxee defaraguñu nit réew mi amagul capacité produire nit euh, fu mu nekk nii lan mooy solution bi par rapport à cette situation bi nga xamante ne ni moom la ñu gis ci mbedd mi donc des marchands ambulants yoo xamante ne ni dañuy installé wu de sorte que euh, ñoom déjà ils se mettent en danger mais ils mettent en danger ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a utiliser wala euh, jaar ci cette voie publique ci ci ci voie boobu donc la circulation des biens et des personnes quelque part est menacée lan mooy solution une solution marchant en bilan. Mm. Réumi, il faut nous waxtaan ñun sénégalais nous, ñun ci suñu bopp waxuma la affaire état état ne peut rien faire pour ces faits là il faudrait que les sénégalais se concertent une concertation nationale nous mm-hmm. devons waxtaan ñu ah. mais gay nan lañuy def ba génn fi ñu nekk ni suñu réew mi waaw non pas dialogue concertation ak dialogue du ben xam nga dialogue bo xamni ay politiciens ak syndicalistes ak élèves ak enseignants ñom ñoy dem dajalo xolal nax ñu divertir ñu ñun ñu tok di leen sétane ñu waxtane nan lañuy ñuy waj réew mi lool yépp c'est une façon de nous exclure ñun ñi nga xamni ño leen ëpp xam-xam junni yoon xam solution bi indi bi réew mi wara am pour génn fi mu nekk ñom lool lañuy def lool ay dialogue man concertation la ñu waxtane sénégalais yépp waxtane ñu indi ñépp donga daara bi

bu adéquate bu immédiat c'est juste que sénégalais yi dajaloo ñu waxtaan. ñu xool nan lañuy def ba suñu alal ji nga xam ni sénégalais yépp sur tout point de vue ñu ngi koy génn muy dem ci loo xam ni amul njariñ nan lañ koy injecté ci réew mi su ko defee ñi nga xam ne sinti nii mën nañ seen métier. ñu bee école de métier wala ay ay industrie de métier ñi nga xam kenn ku nekk par exemple dama lay jox benn exemple man je suis de Touba Touba Mbacké gi ma juddoo yoroo fa màggee fa bu ñëwoon par exemple nan la ñu war a mën a def ba sénégalais benn bu nekk mën a injecter le sens de ton existence pour que Sénégal dem ca kanam man ni léegi ñun waa Touba kaay leen ñun dama gis bu màggalu Touba jotee mais Cheikh doomu Cheikh Béthio Thioune day dem Mali dépense fa plus de un milliard ci ay nag peut-être Aïda Diallo la même chose lay def am na benn commerçant bu dëkk Touba boo xam ne moom lay dem dépense fa un milliard ci pom am keneen koo xam ne Bangladesh lay dem dépense fa un milliard ci jar am ku dem Côte d'Ivoire dépense fa un milliard ci café mais loolu bu ñëwee Touba ak pombiteer ak yu ne mel c'est des milliards et des milliards mais day génn réew mi léegi bu ñëwee nan la ñuy def léegi ba bu ñu bu ci ñetti fan yi ñu lekk ko taal ko ko mu jeex léegi ñun waa Touba nan la ñuy def ba màggal jii di ñëw bu bii jàllee bii di ñëw mais nag yooyu am na benn zone industrielle boo xam ne day produire ay nag ci biir tu ci biir Sénégal. ñu ñu bañ a jéggaani nan la ñuy def ba Touba am nañu ay ndaw am ay xale am ay punkal soo soo dee dox ci diggante marché Ocass ak jumaa ji ak maquette ba. ak ci garage ak ak oto yi yi daw Mbàkke tubaa nga xam ni tubaa am nañu ay xale am na ñu doole am na boroomi al balal am nañu koom-koom mais nan la ñuy def ba pom dootuñu ko dem di jëndi Maroc màggal gële di ñëw nan la ñuy def ba kafe certes Côte d'Ivoire moo ci spécialisé wu mais nan la ñuy def ba fi mbay tollu tey nga xam ne mën nañoo bay noor bay nawet nan la ñuy ba xale yi di bay ci biir dëkk bi nan la ñuy def sax ba nag yooyu nga xam ni jot na ñëw jógee Guinée ak Mali ak Niger mhm. mais suñ ko rayee mu nekk ay milliers de milliers de milliers de bêtes mais der bi nan lañuy créer benn zone industrielle ci biir Touba jël ay professionnels yu nekk ngaay ak ñu jógee Touba dem ngaay ak ñu ñu formé waa Touba pour ñu mën cee defar ay saga ki dal. Mhm. c'est comme ça un pro un programme une société. mu nekk ah. des des des mécanismes à deux balles parce que déjà di nga di nga di nga mën a euh, fournir emploi sa mhm. jeunesse. ba pare di nga mën a recycler da nga mën a recycler recyclage bi day créer day day générer création d'emploi tout à fait c'est comme ça on fait mais mooy li ma la c'est-à-dire njiit yi nga xam ne ñooy jiite réew mi. Mhm seulement que dafa nek ben minorité éclairée té ñoom it bëgguñu ko bàyyee kenn motax dañuy nax nit ñi dañuy divertir nit ñi nu ñu leen topé rek lima la wax rek ñom rek lañuy waxtané fo dem plateau sax yeen sax am ngeen ci part de responsabilité 98 des médias du Sénégal duñu wax lu amal njariñ société bi fi ne boo xoolee débat yi commencé am sax ci télé yi légui da ngay xol kuy wax lu neex wa kër Macky Sall ak koo xam ne mu ngi wax luy taraxal Ousmane Sonko wala koo xam ne ci Ousmane Sonko la faral di toll waa kër Macky di leen jéem a xub ci loolu lañ wax mais du ñu wax ci capital humain nu ñu war a mën a def ba génn ci situation yi loolu nag moom mooy présence ñu fi ma sàmba nekk lu ñu fi ma demba dañoo ñëw pour ngi def liggéey dem naa fu ne ci ñeenti continent toog naa fa ci ay plateau télévisé les médias les plus corrompus du monde ce sont les médias sénégalais du ma ne ñëpp nag mais ñi ci ëpp quatre yi fi mais da ngay gis site yoo xam ni plateau yoo xam ni ña fay toog da ngay xam ni ñii dañ leen di fay ñuy wax rek di wax loo xam ne da ngay xam ni kii boo ko woon di ko li ngay wax ni foo ko teg mais lan moo ci njariñal réew mi mais day layam layam yi wala mu yori lex ne am looy du ñu xam ne ñoo c'est la vérité non c'est la vérité réew mi ci boppam moo jar refonder mm-hmm. il va falloir une refondation de notre nation mm-hmm. gis nga allez-y posez sa question non naa noppi sax bala ñu may fekk fii di ma jàpp <laughs> <laughs> Cheikh gennal ci li nga né <laughs> yow kan mo lay mais euh, Cheikh hmm. euh, xam naa dañuy euh, ñëw rek duggu ci li nga xamantene ni mom modi développement du capital humain ndax danaka sey débat yépp lu ci ëpp day tourner autour développement capital humain hmm. nga défal ñu ci rek ben njangat lu yaatu parce que bo setlo amna rôle bu déterminant ci jëlé fi li ñuy wowe ndol mais également renforcer li nga xamante ne nii moom la ñuy woowee euh, inclusion sociale. gis nga développement capital humain il faut nga dem ca base ba. dama koy wax dama koy faral di def tout le temps ci sama ay live xam naa nit ñi dinañ ñi kii lii ñor na ko dama ni au moment bi nga xam ne ñu ngi waxtaan man ak yow am na benn sénégalaise boo xam ni benn sénégalaise jógee ci réew mi dem Amérique mu ngi tëdd ci lalu clinique di accoucher. wala Allemagne wala France au même moment fi ñu waxtani amna benen sénégalaise bo xamni mu ngi accoucher mais gis nga ñaari xalé yi buñu juddondo manam égalité des chances du am ci ñaar ñi. ki day judd rek am espoir et am promesse de préparation kii judd rek ñak espoir d'abord ci wajuri xalé yi su juddoo bañ dagg cordon ombilical bi bañ tafal ko yaay ji ci dënd bi yaay ji bu dee fii la yaay ji day joy ngir banex ndax amna na doom mais bu fekkee papay xalé bi mu ngi taxaw di assister accouche accouchement bi. mom moom xelam yépp mu ngi ci dans une semaine fan lay jëlee ay xar yu mu war a fan lay jëlee ay yéré yu mu war euh, solal nda yaay ji. mu ngi xalaat dans 3 mois fan lay jëlee yuppalaan fan lay jëlee ay layet layet moy accompagne euh, moy accompagner xalé bi durant bi mi am ben ba peut-être bi mi am ñenti at ay couche ay biberon ak seral ak ay yéré xalé yu mu war a soral na mu ngi xalaat bu xale bi sibro pali wala choléra nan lañ koy ñàkkee di ko xalaat kële réew moom juddu moom teggeel na ko loolu yëpp kee du am problème boobu mm-hmm. xaw ma ndax comprendre nga li may expliqué fii xale bi mu ngi xalaat ya papa ji mu ngi xalaat bu amee ñeenti at juróomi at fan lay jëlee lu ko couvrir ci scolarisation pour ñu mën ko jàngal lu ko amal njariñ lu amal njariñ réew mi mën ko amal njariñ mm-hmm. te imagine toi bàyyi xale bi peut-être balaa deux ans xale bi di dëgër am na beneen doom c'est-à-dire problème ko war ci ans. bi deux 18 ans. chaque deux ans de dolli ci 18 ans. Comment da comprendre li ma expliqué Vous xale ba. réew ma teggeel na ko bi ma bu ci mhm. état lebal Vous may. Mhm. Diko jox faire. yëre laisses jox muy lekk yow bàyyi bi janvier ou février dañ la koy délo. moom la ñuy ay taxes da ngay calculer li nga à état bi dalay xamal ni ya jur xale bi mais réew mi moom moom xale bi. donc réew mi da koy top ba mu dem top cursus scolaire dem ba université mu ne ko ban matière nga soxla yóbbu ko université ay IIM bu California. bu démé ci université bi am ben matière matière bi bu ko choisir dugg ci université bi da fay fekk matériel yi mu soxla yépp ci matière bu dé menuiserie la bëgg suivre mais da fay fekk atelier menuiserie yo xamni ak tous les accessoires lu ko neex lay def bu dé caméra la bëgg di defar. ñu tegal ko fa matériel yi nga xam ni lépp luy xeetoog mbirum caméra da ko fay def soo commencé liggéey mu mu réew mi jox la liggéey ba pare ngay liggéey chaque semaine ñu dagg ci lim la lebaloon dencal la li ci des ñu dencal la ko pour boo amee juróom-benn fukki at ak juróom dootoo liggéey da ngay noos ci donkaasi ji ba ngay dee. ci parents yoo xam ne yàlla bu ñu bañ a comprendre mel sama yos ñu jël la jox la benn système éducatif boo xam dañ ñu naan leen ay yaxam lañ leen laaj xale bi ñu xiirtal ko ci loo xam ne da ci def fukki at ak juróom du ko amal benn njariñ kooku su génnee ñu jël soxna jox ko momit it mu recommencer produire te mënul dara ci ay loxom mais lolu moy waral nga nek ben jakatu bi mbag wala nga lal ci table wala nga lal ci territoire donc il faut la refondation de la nation sénégalaise ñun